rafetlu li nga xamante ni moom mooy lancement bi ñu def démb ci phase nationale yi fii ci Mbàkke mu nekk phase nationale 2024 ñu sant bu baax gërëm kilifa yi nga xamante ni ñëwoon nañu ci lancement bi bokk na ci Bakary Sarr bi nga xamante ni moo yore wàllu caada te nga xamante ni moom la ministère des sports de la culture ak de la yebaloon mu ñëw ci turu gouvernement bi ak ñi mu àndal ñu jaajëfal bu baax Serigne Cheikh Thioro Mbacke mi nga xamante ni moom la ñu bàyyalee phase nationale yi ren jii nii ci 2024. ñu rafetlu itam teewaayu Abdoulaye Fall mi nga xam ni moom mooy trésorier wu Sénégal waaye moom moo yor itam ligue de football bu jurbel ñu gërëmaale ci nag autorités yi nga xamante ni yëpp ñoo nekk ci région bi. muy gouverneur muy préfet muy maire yi ñëpp ñu sante leen gërëm leen bu baax a baax jaajëfal leen démb nag bi ñuy lancé loolu ñuy woowee phase nationale 2024 bu Diourbel nemmeek nañ si bu baax a baax ne nit ñi bari nañu takku nañu lool bu mu jur sax léeg-léeg ay jafe-jafe ku fa nekkoon seetlu nga ni tribune yi teel nañoo fees nit ñi bari woon nañu am nañu mënul woon dugg dem na sax ba mbiru kaaraange dugg ci ba alkaati yi dugg ci ba mu naroon jur musiba loolu nag mu am ñaari jàngat yu ñu ci def ñu gis ne fa ñuy footballee ci stade bi stade Iba Gueye xaw naa tuuti pour ñu boole ñeenti match supporters yëpp ñëwandoo benn yoon stade bi day fees kenn du leen mën a contenir mu nekk ga loolu tax na tey ci suba ONCAV daje waxtaan daal di xool ne loolu kat jafe-jafe la naka lañ koy saafara ñu ne nañu xool ñaari mbir benn bi mooy ndax nekkul li ñu boole supporteru ñeenti juróom-ñetti équipe yëpp ñu dajandoo benn yoon mooy nekk jafe-jafe bi ku nañ kon nañu ko saafara nañu xaaj léegi programme bi ñaari xaaj xaaj bi mooy incha allah bu subaa di dimanche nekk le premier su ma juumul mooy le premier septembre dañuy jouer ñaari match bëccëg ñaari match guddi ñaari match bëccëg yi dafay commencer quinze heures trois heures lay commencer trois 3 heures jotee ñu commencer benn première heure deuxième heure bu ñu commencer ko 17 heures mooy cinq heures bu ñu nee ba 19 heures match yi jeex ñun ñëpp ñu dem. maanaam ñu waroon jouer ñeenti équipe yooyu ñibbi nañu ñu ko waroon organiser dem nañu bu ñu toogee ba 21 heures ñu daal di dellu siwaat organiser waat yeneen ñaari match ñooñu seen i supporteurs yi ñëw ak seen i ñëw nga xam ni duñ tase foofu lu ñu fa fekkante muy nekk ay gàllankoor ndax kat bëgg nañoo jouer nawetaan lool nag bëgg nañu ñëpp gis seen bopp ci li ñuy def waaye bu dee day indi gàllankoor day indi ay jafe-jafe ba nar a jur fitna loolu ñaan ñu ko yàlla ñu nekkoon kon nañu fàggandiku pour que loolu balaa muy am ñu jël ay disposition disposition yooyu mooy yu bees ci changement calendrier bi dañu ñaan nag yéen presse bi ngeen gunge ñu si loolu bu baax a baax ndaxte nit ñi bu ñu amul information bi dañuy faral di ñëwandoo am ñoo xam ne seen équipe dafay jouer guddi ñu ñëw bëccëg nu ñu xam bu baax a baax kan mooy jouer bëccëg ak kan mooy jouer guddi kon loolu mooy innovation bu bees bi par rapport ak li nga xamante ni moom la ñuy def ci jël kii bi pour mën a mën a mën a mën a dem jàpp si mbir mi njortu naa ne programme bi dinañ si ñëwaat incha allah bu subaa dinañ wax bu baax suba ñan ñooy joué 15 euh, heures jëm 17 heures ak ñan ñooy joué 21 euh, heures jëm 1 heure matin wala minuit. jëm ci wàllu sécurité bi président wax na ko nemmeeku bu démb mooy ne wàllu kaaraange bi desoon na ndax takk dar dañoo néewoon démb bu débordement amoon musiba am. kon lu ne mën na faa xew moo tax bi ñu nattee mbir mi xayma ko dañu ne ñu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu kaaraange ndax ñoom loolu mooy seen liggéey nag ñun loolu du suñu liggéey daañu leen wax wax leen li xew lii la ñaan leen itam ñu yokk takk der bu baax a baax a baax a baax ndax nag ñëw ci stade ci football dafa laaj nga nekk sécurité bu loolu amul musiba mën na am te loolu kenn ñaanu ko yàlla am na ku wax ni itam ci yoon wi pour ñëw ci stade bi xaw naa jafe xaw naa lëndëm te léeg-léeg ñu guddee ñu ñaan aussi takk der yi ñu yokk kaaraange ci yoon woowu pour mën a def ay lu ñu loolu ñuy woowee patrouille pour mën a surveiller waale yoon bi pour que du ba am benn gàllankoor si doomu aadama yi parce que nag ñun ONCAV dañoo nekk reconnu d'utilité publique kon nit ñi def ñu ñor ci itam ñu war a toppatoo loolu. wàllu jumtukaay bi ku ne gis na ni senegal gi yëpp ñoo problème jumtukaay ci wàllu surtout sport. waaye ku ne xam na nañ tey stade bi stade Iba Gueye bii ni mu mel mënoon naa am tribune bu gën a rëy bii bu gën a yaatu wër sax na am tribune bu yaatu est-ce que nekkul sax ne dañu war a def plaidoyer pour Sénégal gi yëpp département yëpp commune yëpp am ay yu mag yu mucc ayib yu mën a contenir public bu toll ne comme public bi fi amoon démb loolu nag daañu ko porté wax ko ñi ñu ko war a wax fexe ba ñëpp dégg ko itam pour que lu mel nii ñu fexe ba yaatal ko ba ñëpp am stade bu baax waaye bu mag bu am tribune yu normal am place yu doy nga xam ne ku ñëw di mun ñëw seetaan sans problème te du am benn jafe-jafe leneen li mooy loolu ñu tuddee évacuation moom noonu lañu ko tuddee yéen tubaab yi yéen koy woowee évacuation waaw ñun dañoo ne dañuy jouer ñaari match bëccëg ñaari match yi jeex na 19 heures ñun ñibbi nañ dem nañu kon ku toog ci stade ba yaa fa toog day am ñeneen ñuy ñëw 21 heures pour beneen manifestation loolu leneen la encore donc amaana sax ñun du ñu évacuer kenn waaye ñun suñu manifestation jeex na ñibbi nañu 19 heures 21 heures bu jotee ñeneen ñooy ñëwaat beneen manifestation la donc loolu dafay yomb maanaam manifestation bi amoon 15 heures ba 19 heures dafa jeex nit ñu tëj ñibbi ñëpp dellu ñibbi ñu tëj dem ñibbi parce que soo xool organisation bi ay pool la te pool bu nekk ak donc noonu la ñu koy incha allah ba du am chevauchement sooy xool 2 heures de temps la xanaa nit doo nga ñëw sa fay benn bu téeméer match bi jeex ñaar yëpp jeex ba 19 heures nga ne xaaral ma toog jëmale 21 heures ah du mënuñu laa évacuer yaa war a évacuer sa bopp day tax machin la nga fayoon téeméer boobu moom jeex na leneen la leneen la du fay bi mais organisation bi ak sécurité bi parce que suñu ko defeewul noonu day jéggi dayoo ba kenn du ko attan te ku ne xam na lu mel ni comme phase nationale ak mbooloo mi muy dajale dajale fukki fukki ak ñeenti région yépp dajale les 46 départements du Sénégal ASC e yi bëri loolu lu mot ay fanweer jëm kaw loolu nag boo deful attention soo juumee ci organisation bi mën na répercuté wu jur leneen loo xamante ni xaarul la ko woon loolu moo tax daañu def suñu kéemtalaay kàttan ba nit ñi ñëw ci jàmm seetaan si jàmm mu am kaaraange ñëpp ñibbi si jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah